c'est pour au moins ñaax nit ñi xamal nit ni yan procédure la ñuy jënd terrain parce que léegi c'est fini le nous on peut dañu bëgg xeex les problématiques yi ne ci foncier acheter un terrain sans avoir aucun avis favorable bokkuñu ci yooyu donc du moo tax ñu bëgg ni panel bi ñuy def ñi wan leen yoon les pratiques administratives yoon bi nga xam ne fa ngay jaar pour mën a jënd sa wala sa terrain de manière juridique légale. te loolu ci benn fan yaakaar ngeen ne war ngeen ko. ci bon ci ñaari fan. bi dina jàll. dina jàll on espère bien. Mm-hmm. oui seen entreprise non possibilité bon nous a pas mal de projets ici Sénégal. am nañ pas mal de projets ici au Sénégal donc on est là nos stands est si nit mën a mel ñu koy xaar mu ñëw ñu wan ko suñu produit nan nga koy amee avec toute ak facilité boo xam ne mënoo ko imaginer. quelle réalisation concrète ngeen def bon actuellement bon actuellement euh, on a des projets am nañ ay projets ci Zac de am nañ ay projets à Diass même à Thiès on est partenariat ak benn société bi nga cabinet Sirac donc euh, on est en vraiment de réaliser nos projets ñu ngi ci yoonu exercer suñu projet la. merci si ki nga xam ne mooy suñu xarit euh, monsieur de Fall mu organiser fi benn panel bu am solo moo ko fi organiser organiser benn salon fii si Thiès ma félicité ko d'abord si initiative boobu parce que lu mel nii li gën a bëri dañ ko organiser si hôtel yi si séminaire si Dakar ñi nga xam ne ñoo xam information bi rek ñoo fa mën a dem mais boo ñëwee fekk si nit ñi def ko si place de France nga xam ne ku fi romb. ku ne dina bu taxawee dina jàdd xool bu fekkee ne intéressé na ko mu xool bu dee lu bëgg na laajte ñu ñu wax ko donc je pense loolu c'est important ñaareel bi thème sujet bi mooy mbiru suuf ak important su suuf fii ci biir Sénégal nee naa loolu mbir mu am solo la si réew ndax mbir mu indi bu lëm bu lënt xelu ni ñi la da gis ko yore xaalisam yore moyen dem jënd suuf dem ba bëgg dëkk terrain bi am litige ñu ne coow bi dafa am terrain bi dafa am coow alors ëllëg dootu mën a terrain bi nekk di la xool nga koy xool ngeen mujjee dem ay tribunal yéeg wàcc ba yooyu gis nañ ko ñaar ñaari ñetteel bi tam gis nañ ne population yi seen bopp ñiy jaay suuf si ñu gën a bëri dafa bëri ay njublang njublang dafa bëri si suuf si alors que am na kuréel yoo xam ne ay sociétés yu fi taxaw ay kuréel yu état bi teg muy urbanisme muy cadastre muy domaine muy sant fiscaux yi muy mairie yi muy notaire yi muy société immobilière yi nga xam ne dañoo am seen agrément ñu xam leen mën leen a saytu nga xam ne bu bonoon bu lu ma bon bon bon ëllëgee subir boo demoon ba ba gisoo ne sax mu nga deen dellu wax leen delloo ma li ma yore li ma bu fi amee kay vraiment ku dul lakk moo gën dem gis koo xam ne day ñëw yore cachet euh, ay tampon ñëw na dama lay jaay suuf bu la koy jaay si lënam la la koy jaay terrain bu mu lay jaay doo ko gis euh, yow boo ko nee nañ dem kadas du nangu boo ko ne nañ dem du nangu kooku vraiment boo ko joxee sa suuf sa xaalis mu jox la kayit kayit boobu ëllëg boo si amee mbetteel bokk nga si ñu tooñ sa bopp moo tax ñu ngi ñaan nit ñi ñu góorgóorlu ba ba lewal li ñu am kër nag dafa bokk si li nga xam ne doomu aadama bu ne danga nga koy bëgg a mais pour nga yittewoo ko nag il faut nga am foo teg sa sa sa sa bopp fu leer nga teg sa tànk fu leer loolu moo tax ñu ngi félicité encore une fois monsieur Clédor Fall ah, ñu bañ leen di toujours rek di leen xaw a soofantal parce que d' abord portion bu am solo la ci population Sénégal donc laaj nañu utal leen eh, bu ñu soxlaa eh, ñu ngi jàng di am seen i liggéey bu ñu buggee teel nañ jox leen bu ñu nekk ak seen i borom kër ah, peut-être que bu bu kër gi indee ñoom ñu indi mu am këram ñu am seen kër peut-être mbir mi lay gën a neex rek nañ si jàppale ko waaye ñoom tam dañ di ñaax en contrepartie ah ñu bañ a seen xaalis bi ñu jël di ko pasar pasar rek di ko tasaare loolu sax bu dee dëgg neex yàlla jigéen ñi def nañ ci effort bu rëy rëy rëy mais nañ leen di gën a ñaax ñu gën a investir si secteur yi nga xam ne mel noonu loolu nag ci wàllu boobu tamit dañ ko gis parce que même société immobilière yi am fi am na ci ay xam ne ay jigéen ñoo ko yore ñu ngi encourage jigéen ñi ñu ñu ñu fexe di encourage ñëpp ñetteel bi laaj nga ma ko léegi mooy ñu fexe ci biir quartier yi ñuy dafa mu am quartier pour ñu néew doole am quartier ñu am doole yemamaay am quartier ñu am doole parce que Sénégal noonu la tabaxaw amul benn quartier bëgguñu Sénégal mu am ñu ñu beddi ñi nga xam ne dañoo néew doole féete fële ñi am doole féete fële loolu de am lu mu jur si réew ay xaajaloog yooyu surtout que nag am doole moom am am am alal jamono rek lay moo tax ñu bëgg président la bi lu mu santaane mooy quartier yi am homogénéité bi ñu amoon démb ak démb maanaam boo defee programme nga def un économique très pour ñi nga xam ne euh, jeune enseignant buy doog a tàmbale bëgg am këram Ah, jeune fonctionnaire buy doog a tàmbale euh, ouvrier boo xam ne am na salaire bu wóor mu mun si am ah fonctionnaire bu am doole wala cadre banque bu am doole mun fa am këram riche nit bu riche bu am xaalis te bëgg a dëkk si quartier boobu tam am fa këram noonu la Sénégal baax tabaxoo moo tax may insister beaucoup pour que loolu yëpp ñoom société immobilière ñu góorgóorlu si mel noonu.